lii ñu la fédération ñoo ci ànd di tudd tur responsable yu mag parce que normal wa loolu nag man dama leen lii moom li ma wóor mooy kilifa gu mag ngeen wax ne moo leen yebal moom bu xamoon ni ñi ngeen koy doxalee moom du ko nangu parce que da koy boole population bi te ñoom dañ koy yàqal fi nekk nii li nekk ci bi moom ak nit ñi li ñuy yëg mhm. mooy koo dégg mu naan lañ lii alxuraan la xeex mais am na fu ko teg d' accord Oustaz Mokhtar Sarr mm. euh, maa ngi maa ngi li sànq li Oustaz Assane Diouf doon ñu leeral ci depuis Senghor conflit wala enfin conflit wala malentendu wala confrontation am ci diggante daara yi ak état mm. euh, évolué na de Senghor après Abdou Diouf mu ne ma Abdou Diouf surtout c' était quelqu'un boo xam ne daanaka moom doon seetaan daara rek euh, Ablaye Wade bi mu ñëwee. am na effort yu mu def am na ay politique yu mu lancé am na ay euh, organiser sax yalwaan parce que demoon na ba ne dañuy institutionnaliser li nga xam ne mooy yalwaan ak yu deme noonu ñu ne avec Macky Sall dafa mel dañu delluwaat arrièreaat ginnaaw est-ce que même constat bi nga jël est am na ay ay fait tey yoo xam ne daf lay xalaat loo oustaz Makhtar que ni état wu Sénégal depuis Senghor ba ci Macky Sall dañoo jóg ngir néewal doole daara ci réew mi. Ah, waaw xam nga état yi fi passé yëpp dégguñ sañ daara buñ toj bëtam waaw ko déggee ci fii la ame moom. te sëñ daara boo xam ne nii du daara lu dul benn victime mu euh, dañ leen bëgg a neewal doole amuñu lu ñu dundee seen ndongo génn yalwaani. Mm-hmm. doomu nijaayam ñu ne leen du ngeen fi yalwaani. ma su ñoo dégg nguurug Ablaye Wade sëñ daara bu ñu toj bëtam bi ci nguurug Senghor ba ci nguurug Abdou Diouf. Mm-hmm. li xew dafa jiitu nguurug Senghor. ca jamonoy Faidherbe bu la woon aywa bu dafa rey ay sëriñu daara. waxuma tëj de ak toj bët rey mais ray histoire mi ngi fi docteur Jim Darame bind na ci livre mm-hmm. ak lakk ay ñu dul jeex mm-hmm. waaw lakki daara moom lakk nay daara ray na sëriñu daara di interdit parent yi ñu jël seen doom di leen yóbbu ci daara ya wala condition day jàngale tubaab te ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal réew la moo xam ne daara jiitoon na fi école lu mu néew néew mille lu mu néew néew Hmm. population bi nii ñu déggee tubaab nii doon di ko ko làkkee bu njëkk ba arab la ñu déggee woon noonu doon ko ni làkkee. dëgg la yi fi nekk arab lañ daan bind. après mille gën jaa néew la ñu wax am na sax ñu wax mille deux cent mais mille yi moom mat na. Hmm. gannaaw bi la école tubaab soog di dugg ci senegal mais Faidherbe bu def ci jëf jëm ci jëf. Hmm. tëj yi sëriñu daara. tegal leen projet yi ñuy tegal di laaj ay documents yi dul jeex pour ubbi daara yu ni mel mais ñu ngi ko inspiré woo ci Faidherbe dafa dem ba mujj imposer sëriñ daara yi balaa cee kenn ubbeeti daara imagineel <coughs> nga ñëw ci dëkk fekk fa daara magee fa mille ans mhm. nga ñëw ne léegi sax balaa ngeen fay ubbeeti daara force da ngeen di indi nangami document teg ma càmbar ko xool ba xam su ma ko validé soog di leen jox ndigal ngeen ubbi daara ba am na ci ñoo xam ne dañu mujj respecté outil loolu noonu les yi am na ci ñu mu nangul am na ci ñu mu bañal mhm. moom feder bu mm-hmm. coono yooyu feder bu doon teg sëriñu daara ya agenda bi ba léegi jugu fi day woyof ak a diis imagineel mm-hmm. sëñ Adama Seck moom a gën a maîtriser document dossier boobu noonu li ñu mm-hmm. ne yëkkati nañu lu mat euh, quatorze milliards sëriñ daara yi waane ko laa ko mën a tuddee indi teg ci taabal ji gouvernement bi teq ci 4 milliards dugal ci plan tàkkal Ablaye Wade wàdd ci taawu Wade taawu Wade fu fu 14 milliards jóge Euh, banque islamique de banque islamique de développement moo ko financé. d'accord 4 milliards yooyu ba léegi gouvernement du Sénégal mi ngi ko yoral fayee nu ko ñun taalibe yi ñun ñi muy tere yalwaan mi ngi yoral 4 milliards yoo xam ne bu nu ko fayoon ñu mën a jàpp ci 4 milliards yooyu noonu la ba mbas mi jeex. ba mbas mi jeex. <laughs> mais na ko déglul de. Uh-huh. bisimilah. 10 milliards euh, wala 9 moo ci des. Uh-huh. ñu am programme mu 64 daara. 32 daara mooy daara moderne. 32 public. Uh-huh. daara moderne yi. ndakaaru gi li fi nekk ci daara ëpp na junne di dem xaw naa man ñaari junne daara ndakaaru rek ndakaaru kese kese léegi amoo vision lu dul 64 daara Sénégal gépp ca jamonoy Ablaye Wade ba tey tegaatuñ ci birig pour ne nañ dolli daara yi déglul de mhm. dix milliards laa la wax mhm. deux mille vingt et un mhm. directeur protection des enfants moo def révélation bu grave muy dañ ko invité ci télé bi mu ne. 2021 mhm. dañu 2020 dañu tàmbali woon benn programme. retiré xale yi ci mbedd mi. foo déggee zéro enfant dans la rue. Mhm. bindal ci suuf laajte question mooy lan. Mhm. tontu bi laaj ko waa Daara. mooy zéro taalibe dans les Daara. yéen noonu ngeen ko déggee noonu lañ ko déggee ñun. benn taalibe bëgg duñ koo gis ci Daara yi te ñu ngi tàmbalee ci Daara yalwaan yi te danaa ko firndeel. mu ne deux mille vingt. Mhm. dañu tàmbali programme bi retiré nañ cinq mille et quelques enfants ci mbedd mi te mooy cinq mille taalibe rek <laughs> ndax enfants yi mu wax retiré na leen ba léegi ñu ngi génn di gis ay enfants waxtu wu nekk te ñun ñi ñu dégg ñu delloo leen Ndakaaru. Mhm. Euh, Ndar. Ziguinchor Ziguinchor ak yeneen i régions. Mhm. ñëpp ay taalibe leen. dégguñu biir bis bu ñu gaaree pont Grand Yoff dégguñu bis bu ñu gaaree Mbëbës Mbëbës. ba bés mhm. ay 24 heures la fa xale yi ne buñ paree ci euh, ci ci ci ron euh, otombal yi la ñuy fanaan mhm. protection des enfants yeggu faa ki buusam ak i takk deram mais taalibe yi la ñuy xaar bañ génni yalwaani ñu xaar leen ci bopp koñ bi ne leen kaay jël sarax fii yoof ci seen yoon wu mujj wii mhm. dañoo taxawal bus taalibe yi génn yalwaan ñu leen kaay leen jël sarax yori mbuus taalibe yi daw ñoom ñëpp ñëw ñu tijji buntu buus bi dugal buus bi dugal leen ne centre ya jàppal question foofu nga laaj ko centre ñaata lañ ci fayee ko taalibe bu nekk question la. Mhm. pour business bi nekk ci biir taalibe yi taalibe yi jamaar lañ bu ñuy bu buy nelaw fi mu toll léegi mu ne bu njëkk ba dañoo delloo woon lu mat ay junniy xale mais dañu gis ne ñu bari dañoo dellu si waat. léegi nag euh, gouvernement bi dafa yëkkati waat beneen politique yëkkati na 15 milliards directeur protection des enfants mooy wax. 2021 mhm. yëkkatiwaat nañu 15 milliards teg ko ci loxo madame la ministre. 15 milliards 15 milliards. pour pour def lan. pour jëlee xale yi ci mbedd bi. 15 milliards déglu de 15 milliards. Sénégalais yi nit ñu déglu ñu àtte ñoom ñii ku dugaloon 10 milliards pour tabax daara mais 15 milliards yi boo ko dugalaatoon foofu noonu la ñaata daara la mën a tabaxaat. yu bari 2022 nga dugalaat 10 milliards kese. 23 nga dugalaat 10 milliards fii ak 2030 problème mu yalwaan jóg Sénégal mais ñu yëkkati 15 milliards jox ko ministère mu lëkkaloo ceeg ñoom ca lëkkalool. ñu ne léegi dañoo bëgg jëlee xale ci mbedd mi mu ne. Hmm. ministre bi protection des enfants damay nettali waxam de. intérieur ministre de la justice communication ministre de la santé euh, préfet département yi. Hmm. Ah? ak les partenaires ak sunuy partenaires ñun ñëpp ñoo def benn coalition pour ñu mën a réussir lii nu bëgg a def dootuñu nangooti la amoon bu njëkk ba la hmm. amoon bu njëkk ba mooy lan mooy li ngeen wax léegi. man maa nekk Ndramé Escale. fa ma dëkk amul daara joo xam ne ni sama doom mën na fa jàngee. ca ndukk su ma juumul. yow nga dëkk Ndoukoumane. Mhm. am nga sa mbokk mu tudd Adama sekk mi ngi fi Dakar wala mu tudd rek Oustaz Taha Niang mi mbir mi xewee. Mhm. nga jël sa doom indil ko ko fii ci Ndakaaru Oustaz Oustaz Taha Niang maslaha daaraam ba Cheikhul Hadji Abdoul Aziz daan wax. na mhm. nañu dimbale sëriñu daara ya ndongo yi wër te ñu bàyyi leen la seen maslaha daara laaj ñu doxal ko dañuy jël sa doom nga bàyyi ko sëñ daara bi maslaha daaraam li mu laaj. mu def ko. Mm-hmm. mooy amul ceeb ak diw bu mu dundalee sa doom sa doom day génn yenn heures yi uti lekk ak naan dellu si. Mm-hmm. léegi yow nga jël xale yooyu delloo ko wayjur nijaayu Oustaz Taha dégg naa ko bi mbiri xewee mu ne. Mm-hmm. man bu ñu jëlee sama doom ci daara ji indilaat ma ko kaw la danaa ko jëlaat delloo si waat ko ci daara ji ndax duñ ma tànnal sama doom fan la war a dem man maa koy tànn. mu ne na dañoo gis ne parents yu bari bi ñu leen delloojee seen doom. dañoo jëlaat xale yi delloo si ko. mais loolu war leen woon a yee ñu toog ñu ñu jàngataat. Hmm, xam nga ñu war a jëlaat solution bi ci sëriñ bi la et non delloo ko. mais delloo ko ci wayjur. Hmm, hmm. mais léegi nga def trois cent millions deux mille vingt léegi deux mille vingt et indi quinze milliards ci même programme bi te programme bi dafa essuyé total te bii noonu lay essuyé ah. léegi quinze milliards nga jël ko jébbalaat ko aw ne na la léegi xale yëpp nañ dellu man xam naa kenn ku ma woon dama laaj benn masala ci affaire centre yi. balaa ma ko ci centre yi ñu danaa la wan danaa la wan benn image ni jàppee taalibe yi. Mhm. téel ma téel ma image yooyu après da nga ma ci ñëwal. Mhm. kenn ku ma woo ci centre ni ma Oustaz ndax dagan na euh, benn nit woo la ne ma ne la damaa bëgg euh, nga jox ma 10 million après bu ma lay fay naa la fay 11 million ma ne ko loolu moom daganul mu nekk di ma poser question ba ndekete moom. Mhm. dafa am ku nekk benn ci centre yooyu xam naa centre léegi kooku ndekkete centre bi day dundal taalibe yi buñ ko ko joxee. bu leen dundalee ba noppi def facture. état bi fay ko. facture bi daf koy gonfale pour ñu dem trésor ñu fay ko xaalisam. mu ne moom bu lebalee waa ji dix millions. Hmm. nee dina ko ci tegal yeneen i millions. mu ne ma ndax loolu man xaw ma lu muy laaj après la ma topp bi ma ne ko dagganul mu may wër-wërloo ba bu ma ne ko ne ah, <laughs> <laughs> léegi mu ne déglul ci laay daanelee. ndax damay def benn lu doy waar luy hmm. xew. Hmm. mu ne léegi bu ñu dellootee benn xale ci deux mille vingt et bi woy juram dellowaat ko léegi dugal nañ ci ministre de la justice woy jur woowu dañ koy defal projet yóbbu ko tribunal te déjà tàmbali nañ ko. yóbbu ko waajur woy jur wi tribunal am na ko tudd Serigne Saïd Sall mi ngi dëkk Mbour. Mhm. doomam la jël indi ko fii Ndakaaru mbokk sëñ daaraam bu tudd. Euh, bu nekk Malika. Mhm. xale ba dawee ca daara ja ñu jàpp ko yóbbu ci benn centre xam naa place bi mu nekk. mu dem ñu signéloo ko laaj ko ay enquêtes yu dul jeex yow yaay kan ñaata soxna nga am looy liggéey lu ne ñu laaj ko ko. Mhm. mu wax lépp ñu signéloo ko delloo ko xale bi. mu jëlaat xale bi waat ko ca daara ja. ca daara te bu ñuy delloo ci xale bi centre bi ñëwee xale bi ne ko xale bi buy dell boo buñ la delluwaatee ca daara ja. dawal nga ñëw ci centre bi. ñu wax loolu xale bi. xale bi dawaan ñëw ci centre bi. parent bi ñëw ñu ne ko tribunal procureur àllarba ji weesu ja ca ginnaaw laa njëkk a dégg Sénégal ñu yóbbu wayjur tribunal ngir dafa yóbbu doomam ca daara néew na doole taalibeem ba nekk ca daara ja dawee fa ñu ne ko tribunal pour nga jot sa doom gannaaw yàlla waa aar daara la contacté ñoo dem ànd ak moom accompagner ko hmm. Hmm. bañ mujj waat ko doomam d' accord alors euh, li muy wane rek mooy les politiques de protection des enfants au Sénégal